bokk na ci xibaar yu tiis yi ñu dal ci jamono yi weesu. Mm-hmm. ak euh, ñàkk yi ñuy ñàkk ñoo xam ne ñu am taxawaay lañ ci askan wi. Mm-hmm. waaye am taxawaay également ci wàllu diine. Mm-hmm. bi mujj muy euh, génn àdduna bu Serigne Atou Diagne. nekk euh, responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah. mu doon ko amoon taxawaay loolu ci mm-hmm. yoonu murit mm-hmm. waaye itam ci wàllu diine de manière générale mm-hmm. moom génn àddinaam nekkoon euh, nekk loo xam ne lu tiis la euh, loo jàpp ci euh, personne personnage bi ak lan nga ñu mën a wax ci moom ak taxawaayam ci askan bi nan lañ ko mën a xaymaa ci dayoo laaj nga laaj ba am solo feebar boo xam ne moom hmm. bu bëree bëri boo xam ne ñun ñëpp dañ cee feebar moom daf cee faju woon muy muy feebaru complex gis nga nit mm-hmm. bis boo fajoo ci complexe ba wér man mm. ngaa doon ku nekk personnage bu ne mën nga ko doon aata dafa dafa dafa faju woon ci complexe un mm-hmm. colom gi muy col te is bu tarxee di ko sol boo ko fekkee Europe boo ko fekkee amerique mm-hmm. boo ko fekkee assemblée boo ko fekkee pale foo ko mën a fekk loolu lay sol. maanaam moo ko vulgariser. lu ah bokk na ci de. Hmm. bokk na ci de. lenn la ca tege mooy tubaab moom ku ne xam na ne dégg na ko ak yeneen làkk waaye dox bañ yëg ni kii ak tubaab la ñàkk complexe gi moo ko ko may donc loolu lu jara a bàyyi xel la ci moom. mooy aatu dafa complexe wutoon mm-hmm. moo ko mën a tax a wàmmat daayir boobu mu yoroon jële ko ci barab indi ko ci barab yóbbu ko ci barab mujj nekk ay entreprise ay société ay nangam lu ne mm-hmm. boo demee fa ñuy dal ca Tuubaa da nga yéemu bu ñu exposé nga gën a yéemu mm-hmm. bu màggal jotee ba ñu indi seen jumtukaay yi nga ne lii fu mu jógee boo génnee bitim réew koo ci tasee ci ñoom nga naw ko ndax liggéeyu àtt bi alakuli xaal nu ñàkk ko rek tey mu fekki benn list benn list boo xam ne bii kuñ ci wax rek nga ne yàlla nag mooy def noonu ndax wax nañ ne bu toll jamono day rocc ñu baax ñi duma ñi baaxu waaw day rocc ñu baax ñi ndax mën a duma ñi baaxul waaw yàlla na àpp sore nag amiin noo ngi koy jaale Sénégal yëpp mhm. waaye di ko jàll jaale Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo toog ci jalbate tey ñàkk ku réy ci moom mhm. moo sol aw dàllam dem taxawu ji ko xam naa noppeeguñu dëgg la jërëjëf mhm. jërëjëf ñu jàll ci euh, laaj bi mujj oustaz euh, dafa am jumtukaay boo xam ne mën nañu jàpp ne yàllaa ñu ko xéewale euh, boo xam ne moom ngay jëfandikoo jamono ji mhm. ngir mën a jàngale diine mhm. moom laa jàkkarlook askan wi ngir mën la laaj ay laaj yoo xam ne da nga siy joxe mhm. say xalaat yu am solo euh, muy internet dañuy gis ne dañuy fas sëy ci jàkk ci maire yi walla ci église waaye bu tas di am dañuy gis ne généralement ci ay vocal yu doy waar ya lañ koy amalee tas ko ci internet bi ba day gën a jaxase maanaam problème boo xam ne na waroon na mën a am solution ci lu yomb mhm. noo gisee euh, jëfandikoo gi ci internet gi ak ravage yi nga xam ne mu ngi koy def ci suñu nekkin nag suñuy jëflante diggante nit xam nga li ak indi xibaar hmm. am métier la ki koy def dañ koy jàngal ba mu jàng ñu defal ko formation hmm. formation ba mu nekk benn journaliste professionnel ñu door ne la acca léegi ci internet comme nit ñi dañuy toxal ay xibaar di joxe te defuñu benn formation hmm. jànguñu fenn du mën a baax du mën a baax Pape nga nii dañ ko dafa am jaar hmm. yéen ñii daa fu ñu leen jaarale ba boo tiimee ci micro bi wala naan may te nangam nga xam ne lii sensible na mhm. lii sensible lii intouchable la lii du intouchable mhm. lii jar naa lu ñutu lii jaru ko mais boo xamut yooyu da ngay sëq di ca def rek mhm. boo meree même boo saaga ci internet bi ngay saaga te bari na ci te bari na ci te euh, danaay wax ne message bi ngay bind ci internet wala wala vocal bu doon ko jàng li ñu tuddee littérature dana xàmmee message bu mer ak ku merut am déet ci point yi ngay def boo waxee ba noppi mm-hmm. ponctuation bi waaw <laughs> fekk jàng littérature da nga xam kii lan lay wax mm-hmm. mais soo ko jàngul bu phrase bi ñëwee rek nga mer tontu beneen affaire mu tontu beneen affaire par exemple tey mm. Alioune Sall day def benn waxtaan am ku jël ci waxtaan wa daal ni kii waxtaan wañ doon def 1924 mm-hmm. la ci diw doon wax moom lay tontu daal ñuy boole ñun ñaar ñu ne sogg ca kaw. ñu Alioune Sall tàkkal Mor Khoudia est-ce que moom lay tàkkale léegi nag su fekkee nu la Mor Khoudia moom daal ne ko day fayu. Hmm. nu muy def daf may tàkkale. léegi nag su ma tàkkalee te man dama mu fayuwaate nu ñuy def ñu tàkkalante. Hmm. suñu programme yàqu ñu ne ci programme ku ne di tàkkale sa morom adduna tukki. Hmm, moo tax internet lu baax la. waaye ku cay dem te amul formation li ngay yàq moo ëpp li ngay defar. da nga yàq ba yàqal sa bopp. jërëjëf si laaj bu am solo jërëjëf oustaz mu nekkoon laaj boo xam ne. sama naataango yi ñoo ko ñoo ma ko. maa leen di jaajëfal ñoo ma yóbbante ndax nekkoon na loo xam ne daal xawoon nañu dafa bëri débat yuñ ci mën. lool lool te te jaaxal nañu te xamuñu woon loolu bu njëkk te war nañoo mën a jëfandikoo internet. ci mhm. anam goo xam ne dinañu amal njariñ ñu boole teg ñu si yoon boo xam ne daal dañuy jëmale kanam. est-ce que xam nga ne man. Mhm. duma ma seetaan vidéo kenn est-ce que xam nga ne man bu ñu ne diwa ngay tàkkali diw du ma ko jéem a yër est-ce que xam nga ne bu ñu ne diw dafa saaga du ma ko jéem a xool Jaylaani soo génn woon benn affaire tey wax ci ba noppi ba ma déglu la ba noppi commentaire yi ci tege duma ci liir benn man sama audio fi ne sama samay waxtaan fi nekk ni bu noppee commentaire yi sama yoon ni ku ci du ko jéem a yër xam nga lu tax su ma xasee na fi ne damaa damaa am benn xarit bu ñu wax Pape Ngañ Pape Ngañ mhm. Njaay dama ko am léegi bu nit ñëwee ne ma pourtant Pape Ngañ mii nga xaritoo nàngam nangam loolu laay bañ a déglu loolu laay bañ a seetaan ndax damay bañ moom ci bopp waa ji mhm. bëgg ma xibaar xibaar yoo xam ne ki may wax ci kooku man jàpp naa ko ba noppi wasalaam mais nit ñi mhm. internet nu la ñuy def da fonk jenn waaye ñu la pourtant ki ngay fonk nii sàcckatu ñàmbi la nga ne non kii bett na ma boo yemoon ci bañ koo liir. xam nga am na saaru jom bi rabbi naasi. qul bi rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi. muy sarril wasaasil xannaasi allazi yuwaswisu yuwaswisu xam nga lu yuwaswisu. Hmm. yuwaswisu mooy seetaani mooy nekk fii su dóori naasi. loo gëm rek bu subaa mu jaxaseel la ko ne la baaxut. def benn benn maladie bu ñu tuddee yuwaswisu moo lay jàpp léegi. Hmm. waaw yàlla ñu ci yàlla jërëjëf ci sa am solo min ma fàttali rek ne benn bés waxoon nga ma ni euh, doo déglu audio yi ah. doo seetaan vidéo yi ndax bañ nga koo seetaan ba mu am genre haine bu mu la indi jëmale ko ci nit ka jeex na te bu boobaa sax amaana du doon loo xam ne lu tegu ci dëgg la jeex na ndax mhm. di sëlëm dëgg la mm. alors ñu lay jaajëfal bu baax ci tontu yi am na solo jàng nañ ci bu baax mm-hmm. di jeexalee rek euh, ci ndenkaane bi nga xam ne moom nga ñuy defal Mm-hmm. ayu bés bu ne waaw jërëjëf maa ngi ciy mm-hmm. bëgg lool macha allah te itam bi ci ndokkeel suñu mbokk Mali Ibrahima fay ci Allemagne mm-hmm. nee moom waxtaan bi sax dana topp lépp mm. waaye ndénkaali bam nee daf ko wutal fu mu koy def mm. waaw yàlla ko yàlla fay amiin ndénkaanu tey bi mooy na nga daw ñaar ngott ak yàq na nga daw ñaar ngott ak yàq boo dawee ngott ngo daw yàq rek loo am man koo denc léegi tey nga am loo denc hmm. ngott baaxut yàq baaxut kon fexeel ba daw ñaar wi rek ni ci diggante bi nag hmm. waaw bul ngott bul yàq nekkal ci diggante bi jërëjëf ab baamtu la nag ci ndénkaan yi weesu woon. dëgg la jërëjëf jërëjëf oustaz ba aljumay jàmm incha allah. jërëjëf Cheikh Abdoul Khadir maa ngi